لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب ci Yàlla yaay buur tey borom لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب ci yàlla yaay buuru tey borom laa ilaaha illallah fa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah yaaram ay maam rijaalu laa yi genn góor ndimbaloo la yow keroog la jafee fii nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com ñu am mbégte àndaat ak yéen comme ni ñu ko baaxoo di def rek ci weeru koor gi euh, tey ji nag ñu ñëw fi nga xam ne nag moo di euh, Kër Baye Ridial sekk ñi ngi toog ak euh, kenn ci ki nga xam ne moo di kenn ci kër gi ni sëñ Sam Seck Ridial ñu fas yéene Seck moom waxtaan ci lépp loo xam ne nag jëm na ci ndogu yeeg weeru koor weeg nañu koy doxalee incha allahu rabbi sëñ Sam maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoog waa 24actu point com ah, jërëjëf nuyu te di leen siyaar ci turu Cheikh Ridial Seck Gëm Bamba ak mboolem mm, kër njabootu Mame Ridial gépp yéen waa 24 actu ñu ngi leen di siyaare di siyaare ñi leen di diglu ak ñi leen di seetaan ñëpp leen sant leen gërëm ci jéego yi ngeen jéggi ba ñëw fii ci kër gi di taatan si ay kàddu ndax li ngeen di def kat ñun rek ngeen koy defal ndax lu baax boo ko jëfee pare ki la koy tasaaral moog yow mi koy jëf yéen a yem atte kon ñu ngi leen di sant leen gërëm ci teewlu bi ak dëkk bi di sant di gërëm seen i auditeurs ak ñi leen di seetaan ak yëpp daal Euh, bu ñu bëggoon a xam euh, tuuti rek ci Mamry Diall lan nga ñëw. waaw Mamry Diall de jàmbaar yi jenn jàmbaar la ci jàmbaari Serigne nekkoon koo xam ne am na ak Serigne Touba Xaadim ñaar fukki at ak juróom bi muy dem gànnaal mm, bokk na ci ñu ànd ak moom ànd naa moom Ceen Jolof bokk nekk ak moom njaarim ay at kon kooku ku jege woon Serigne la. nekkoon wëllëre waaw nekkoon juróom sax wëllëre baayam ndax baayam. sëñ Mor Diabou Sala euh, bokk naa ko te dëkk jàng alxuraan ñoo bokk jenn daara waaye Mame Ridial bi mu jàngee ba am njàngam xaaj ci la yëg ne war naa àgg ci suñu borom mu dem ci Serigne Touba 1902 nag bi mu ñibbisee ci géej gi ne ko damaa bëgg àgg ci suñu borom euh, sama jaamu yàlla yëpp nag ak li ma gën a fonk jébbaloo naa ko ci yow. ci la ko Serigne Touba waxee ne ko kon defal naa la say mbir ci nga ne ci naaju di sama liggéeykat ma ne ci kër gi di sa bindkat jarag gi moo lekk sa weexal wax ci sa jàngoro sëñ yàlla doog a yëg ne kon daa war a am pas-pas maam wërta wërta am wërta am lu yomb daal ci sëriñ Tuubaa loolu moo waral biñ ko exilé gànnaar mu ànd ak moom moo waral mu ànd ak moom Ceen Jolof daanaka fu bari fu sëriñ bi jaar fu metti ànd na fa ak sëñ yàlla euh, maanaam yàgg moom loolu nag ndax am naa moom ñaar fukki at ak juróom ba li fa ñëpp doon wuti muy martaba turi jarul la maanaam moom moom moom mooy ki ko gañe moom sëñ yàlla moom la ko sëriñ Tuubaa jox mboolem ko mos a topp sëriñ Tuubaa rek daraja jooju nga doon wut muy rijaalu la maanaam ñu bëri buñ ko toppee ba fan mën a yem sëriñ bi jox leen garaat ya yemoo ak ñoom waaye euh, li tax mu mujj seexal sëñ rijaal sëriñ Tuubaa sëñ sëñ rijaal ànd naag sëriñ Tuubaa ñaar fukki at waaye ci atam yu mujj la ko doog a jox garaat bi. moo loolu war nga dégg ne maanaam moom la mujj seexal li mujj koo seexal sëñ rijaal itam daa xam ne cër bu mujj mooy gën a sakkan ndax yonente bi moo mujj ci yonente yi. mooy ki ci gën ndax mujj gam ci mujj ginnaawam Ababacar Sadikh moo ci jiitu waaye Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo mujj ci xutbul xaw si jàpp naa moo ci gën ndax mujj gim ci mujj yonente bi gën gim gën ci yonente moo tax yonente sañ ta wàcc Sëriñ Tuubaa gën gim gën ci xutbul xaw si moo tax xutbul xaw si dootu wàcc li des si jamono moom la ko yàlla jox moo yor cër yi di ko seddale si ñir jàlla mujj sedd moom moom moom la jox la fa ñëpp doon wut mu mel ni li mu am tamit gëm-gëm may na ko ndax ku ne Cheikh Ridial nekk waaw maanaam gëm-gëm moo ko may ndax engagement bi mu engagé ci Serigne Touba ngëm-ngëm la ndax bi muy dem ci Serigne Touba dafa dajeeg mag mu ne ko Serigne bi li mu yoroon jeex na boo bëggee cëru da ngay dem ci mag ñi mu defar waaye Serigne moom amatul jot mu ne ko kon yow bàyyi diw Serigne Touba dina nangu li nga yor langu nangu lim jox lim lim jox ñëpp teg ci digg bi mën giir lu ma sama loxo may ma jël waaye mënu maa ñàkkub cër xam nga loolu ngëm-ngëm la ku fa fekkoon mag ñu toll ni ñam fa fekk maanaam nga ne su ma su ma amatul cër Serigne na dina dajalewaat cër yi bu ne giir lu ma sama loxo may ma am waaye mënuma ñàkkub cër loolu jamono jooju borom ak dogu ak borom gëm-gëm maanaam moom moo man lool loola tamit dogu googu nag ci la diggee dikkee ci Serigne Touba liggéey ci Serigne Touba pas-pas boobu ba ni mu génnee àdduna pas-pas boobu mosul jóg ci moom. ñu gis ne tamit ba léegi njaboot gi euh, dañu koy dundal bu baax a baax euh, lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu ndog yi ndax mën ngaa dikkaat ci euh, jëmm ji sell jooju ak ndog yi. li ko waral mooy maanaam Serigne Ridial dan mag ñi dan ko doon kalaam ak Serigne Touba ne du julli du woor benn bi Serigne Touba woolu ko mu ñëw mu ne ko sa baay yii toog nee na ni ma doo julli nee na may doo woor mooy leen ay mu ne ko ay na yoon wax nañ dëgg de Serigne Touba ne ko dama wut satal ak der te ngay jàpp tey julli ndax doomu julli day julli. bi si ngir yàlla ne bëri di dem côté ki su ko mu dëppaat ñëw mu ne ko analoo ci jublu mu ne ko damaa jaayante yow njëg wax ne jàpp naay xajut sama dund. sama jàpp ne juróomi waxtu yi may julli ak koor gi may julli di ko ñàkk san siire naa ko sama yaram di la ko liggéeyal man moo ma gën a doy ndax yëg naa ne magasin ngëneel ak yiw yi ak tuyaaba yëpp sunu borom teg na ko ci loxo ci ma vérifié magasin yi loolu moo ma la mu doon na la sa ndigal nga ne ci ma ne di sa bindkat jarag ju ma lekk sa weexal wax ci sa jàngoro ne ko nag defal naa sa ndigal ci boo ma noppee gis ngay togg ñam di ko indi sama ëtt bi ndabul ajjuma la ko membre yàlla daan def. ajjuma la daan def ajjuma ju nekk morom ji ko daan def. Eh, ginnaaw bi la ko soppi ndogu yi ta ndogu yi tam la waral mu soppi ko benn bis daa ñëw njëriñ doon indi si ay addiyam booba nag seex na ci nekkul sëñ bi la seex ci la am doole. ci la nekkoon ndogal xam nga am doolay joxe oto ak am doolay joxe mbëppi ginaar lu ne la daan defal sëñ bi ci nekkul sëñ bi waaw. waaye benn bis nag daa ñëw di indi si addiyam bi mu dikkee fekk weeru koor feeñ ku tedd ki woolu sëñ Malick Ndiaye ak sëñ Bay saar ne leen tasaaroo leen ci njaarim wax ne weeru feeñ weer wi feeñ na nan ko teeru ca teral ko ndax sëñ bi ni mu fonke mu weer ko lool rek ko jaraloon yéene bi sëñ ba bi sëñ Mari Njaay yéene ba dellu si nag tombeeg sëñ Rijaal di jébbale ay ay addiyam la ku tedd ki ko ne sëñ Mari Njaay dellul ne waa njaarim gépp ku ci desal desu xëy na ko yot Mor Seck ci kër sëñ Masamba Diop gam yi daal ndax moom wóorloo wuñ ko dañ koo liggéeyloo keroog waa Njaaréem ndigalu sëñ bi jooju tax na am na ñooy lan rey guddi gi def ko ay ndékki indil ko ko mu mu rangale ko ci penc ma ba yoor yor góor di di di dang mu ne njaareem gii di tey Serigne Touba mi ngi fi borom xam-xam yëpp a ngi fi diingat kaat yaa ngi fi naar yaa ngi fi. bëccëgu koor gi sama ndab yi ma war a xéwlu ci digg bëccëg gi ba xam benn diingat kat dina génn ci biir kër gi laaj ma lii lu tax. mu toog toog ba tisbaar kenn di ko mu daal ne taalibe bi nan xéwlu lii fu mu ko digg ak Serigne Touba sori na. loola moo waaw mu nekk lu yéeme loola nag moo sabab mbiram yëpp mu delloosi ko nag ci biir weeru koor ay ginaar lañ ko daan def ak ki gàtt. maanaam maanaam lettre bi nga xam ne sax moom la ko Serigne Touba mujj bind ñu tudde ko amru seexil akbar maanaam lu ne leen na ko ndax sëñ bi lu ne da ko caasas ñaar fukk ak juróom-ñett waaye lu mu ñaraas ci ay téeméer maanaam nag yi dong dafa dem kër biraan benn taalibeem bu ñuy wax biraan kan gétt gu mu fa yor mu leel ko topp taalibe gétt ko am gétt sëñ yàlla da koo leel lépp ñu jiital ko wuti njaareem bi mu agsee ci àllarba jooju gàtt yi taxaw nag yi taxaw ceeb bi taxaw diw gi taxaw lépp taxaw mu fekk ku tedd ki Euh, génn àddina ba indi ko Touba maanaam bi ñu ko indee Touba fekk mu taxawal lépp waaye Serigne Touba defoon na ci leetam ne ko donte li fekk fi ko mel ni moo ko joxoon loolu mooy joxoñ bi mu am ci sëñ Mourou Moussa bi bi nga ña ña yóbbuwoon ko tedd ki dellu si nan gàtt yooyu ak nag yooyu ak ceeb boobu ak loolu ñuy wax sarax loolu ñuy wax dëj ci lañ ko defal ko tedd gi kon day mel ni moom la Serigne Touba mu jël jël liggéeyal Serigne Touba itam. Euh, yéen fan ngeen toll ci liggéey bi jamono ji. jamono ji fi ñu ci toll mooy nee ay nag la ay xar la woon ak ay gàtt léegi indi nañ ko ci ay nag ak ay giléem àgg na foofu te liñ ci yéene tamit mooy dem ba Touba gépp ñu di leen jox ndogu ndax ndoolu ndigal lan am mooy fexe bay bernde maanaam ñi nga xam ne ñi ñi ngi woor. ngeen ko toggee jumaa déedéet ndax Serigne Mourou Moustapha moo fi jiitu woon Mamadou Diall daal ko togg di ko jox ginnaaw bi fi jógee Serigne Cheikh mbake santoon ko ay doomi Mamadou Diall Serigne Cheikh Fatim Seck Diall moo ko njëkk di togg kër Diall di ko indil Serigne Cheikh Amadou Mbacke génne ginnaaw bu mu fi jógee sëriñ Amdi Seck Rijaal mi ko mi ko wóotu moom tamit di ko dundal mba moom sax moo ko indi ci bis bu set mu di ko mu di ko def. ànd koog ay rakam sëriñ ak sëriñ Cheikh Fental Seck Rijaal mi nga xam ne tey mooy xalifa maam Cheikh Rijaal bi nga xamee ne sëñ Amdi Seck Rijaal bàyyi na fi sëñ Cheikh Diop Mourou Massamba ànd ak Cheikh Rijaal Gëm Bamba ak seen rakk yëpp ñu di ko taxaw ba ak si fii bi nga xamee ne sëñ Cheikh Fental Seck Rijaal itam moom xalifa gi lay topp mu ngi koy togg di ko yóbbu kër mag moom ka sëñ Mountakha waaye noonu Cheikh Ridial Gëm Bamba bu ko toogee sëñ Moustapha Mohamed mi wutu sëñ Bakki Soxna Lo nga xam ne mooy sunu bunt mooy sunu bunt ci sëriñ Tuubaa tamat ko sëkk nag mu di mbërum diine moo xam ne songal na lislaam mbër moo xam ne bu ko daanee lay islam gépp am bëggam këram ab ëttam lañ koy yóbbu fee ci Daaru Xudoos waaw. Euh, ngir jeexal lan ngeen di soññee taalibe yi nga xam ne. waaw li ñuy soññ taalibe yi rek mooy ñu fàttali leen waxaale ba Maam Ridial waxaale woon ak sëriñ Tuubaa rek mooy naaj rek war a nekk ñun liggéey di jox bi di di dundee fu ak rijaal mën a nekk daal na xam ne liy waru garam mooy liggéey jox sëñ bi yelwaan dunde bu kenn dencal sa poos lenn sëñ bi ndax des sa soxla mënul addiya addiya da ngay jox addiya ba mu des nga doog a def sa soxla waaye waroo faj sa soxla ba mu des ngay jox sëñ bi lool rek la ñuy soññ mboolem ahlu rijaal ku ci bokk daal xamal ne kudd rek nga war a nga war a doon fu tàng rek nga war di nekk waaw li may jeexal di leen sant di leen gërëm ci liggéey bi wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na lool di di la gërëm yow di gërëm daam saw sama taalibe suma xarit di gërëm mbokki julli ji mbokki taalibe yëpp nag euh, kër gi moom ni muy doxee nii rek la sëñ Rijaal Gëm Bamba moom moo jiite liggéey bi sëñ Cheikh Fatim Seck Rijaal mooy jëwriñu liggéey bi man mii di wax ak man maa yor seen kaddu sëñ Cheikh moom ngeen demoon moo yor communication sëñ Amdi Seck Rijaal di sëñ Amdi Rama di xalifa sëñ Cheikh Jumur Masamba moo yore dem bi ak dikk bi maanaam noonu lañ koy toppee ak sunuy rakk ak mboolem taalibe yi noonu la ñuy àndantee liggéey bi rek ba mu jeex. ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mu nekkoon Serigne Sam Seck Ridial ñu ñëwoon tey fii nga xam ne nag moo di kër Serigne Ridial Seck yaakaar naa kàddu yi nga fi dégg nekk na kàddu yu am solo ñu ngi leen di dox dëgg daje incha allah ci yeneen jotaay jeex naa moo nekkoon ci caméra bi montage bi Khadija sant soxna maam Fatou Kébé mi nga xam ne itam jàppoon na ci jotaay bi ak sëñ ka ba beneen incha allah rabbi jërë ngeen def